gan gi mi ngeek ñun ci bu mu jokko bi commissaire euh, de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite Boubacar Sadio ñu ngi lay nuyu commissaire aw maa ngi leen di fay waay. di gërëm ci teel a yeewu bi ngir waxtaan ak ñun. dèjà amul problème ñoo ko bokk. jërëjëf alors commissaire euh, seetlu nañu fan yi yëpp euh, ba ci démba mu gën a fës ay euh, teg loxo yu bari mu di arrestation yoo xam ni ñàkkul du fi yam dana am yeneen ndax hmm. yaakaar nga ni yooyu la arrestation dafa bokk ci xeex fitna gi mën a yeew waaye itam ñàkk xëy na sàmmoonte ak yoon di li leen justement ñi leen teg loxo di tuumaal. waaw du façon li nga xam ne moom moo wóor mooy euh, fii ak police ngi fi moom euh, ay teg loxo moom du du mën a ñàkk. Hmm. bon maintenant pour yi nga xam ne moom ngay tudd nii bon euh, dama yaakaar ni xëy na police dafa war a am ci lu mu sukkandiku pour di dem teg ñi ñi loxo bon teg loxo ñi ñi aussi am na anam boo xam ne noonu la war a demee daal. Euh, d' abord je crois que koo xam ne moo am na adresse am. Hmm. muy kilifa di responsable. Euh, kilifa rek du koo xam ne dafa am place wala am euh, situation bu baax déedéet dès l'instant rek magum jëmm nga. Mm. am nga njaboot et rek kilifa nga ko même bu dee célibataire nga sax mun nga kilifa nga mun nañ la considérer comme kilifa donc kilifa nga xam ne am nañu adresse nga xam ne du ñu daw dem fenn yaakaar naa ne war nañ la mën a jox convocation ne kaay wuyu si moo léegi ñoom bu ñu jotee convocation te yaakaar naa ni vraiment euh, ñi ma gis ñi ñu convoqué yëpp dañu war a mën a wuyu si quoi bon am na benn image boo xam ne maa ngi koy gis. boo xam ne ça concerne bu Assane Diouf bi mm. euh, maa ngi gis ni daal euh, moom ci boppam daal deful benn résistance sax parce que maa ngi dégg muy wax ñi ñi ñëw nañ ko ñëw jël si mm. bon il paraît que nag bi ñuy ñëw nag dana ànd ak euh, ay jumtuwaay yoo xam ne xëy na pour dajji buntu bi la mm. léegi nag li nga xam ne moomu wóorul mooy authenticité u kii boobu waa vidéo bi quoi mais fekk ni effectivement noonu la demee dama ne jaru ko woon ko vraiment mm. jaru ko woon. am na yeneen sax arrestation yoo xam ni. dañu ci ñaawlu aussi euh, fitna gi ñu ci nemmeeku. waaw waaw mais xam nga bon man demee koo xam ne dama objectif quoi mm. c'est vrai que d'abord dinaa sant disons de manière générale police liggéey bu rafet bi nga xam ne moom koy def. am na ñoo xam ne te jii du ñu noppi di sant police parce que dafa leen a génn si yenn situation yi mm. mais également am na loo xam ne fekk dafa sooxe ci ci ci corporation bu mel noonu mm. da nga koy dénoncer aussi pour que ñi ñu mën a jubanti mm-hmm. violence moom am na ci biir police waa du ñëpp nag quelques uns yoo xam ne vraiment ñoo la ñuy doxale quoi brutalité quelquefois ci ni ñuy arrêté nit aussi dafay am quoi mm-hmm. parce que bon police moom yoon moo ko may pour ñu utiliser Euh, force la force publique mhm. moom moo ko yeeyu moom kenn moo ko yeeyu moom ak gendarmerie ko mhm. waaye nag li nga xam ne nag dañ ko ko tere ko képp nga xam ne borom takk der nga mooy violence mhm. parce que am na différence force ak ak violence bon euh, mun naa joxe exemple force mooy par exemple police nee la kaay dugg ni ci biir oto bi ngay résister mais mun nañ la jàpp mbuufaan la duggal la ci biir oto bi kooku force la ñu employé mais li nga xam ne moo jaaduwul mooy nit ki di la pousse di la duggal ci oto bi jël korosam di la ko dóor ah wala di la pes wala di la <laughs> waaw loolu violence la quoi mais képp koo xam ne sam toog nga nga ne police war a mën force moom da wax loolu neex rek quoi dëkk bu mel noonu moom am musul am donc vraiment aussi je crois que arrestation man ci li nga xam ne moom laa ci am ci njàngat ah. hmm. mooy euh, dafa mel ni daal mbir mi bi mu sokkeek ba léegi bon ñi ñu jot a arrêté am na ñoo xam ne xëy na police dafa am élément yu wóor yoo xam ne xëy na si la sukkandiku n'est-ce pas surtout ak xarala yu bees yi hmm. bon mais am na ñoo xam ne ñi ma gisee ñu arrêté leen aussi xëy na dama yaakaar ne xëy na rek danoo bëgg Euh, ñu noppi daal waaw bañ a wax parce que te jii Sonko xëy na euh, ñaanu ma ko yàlla mais tey jii bu demoon kaso am na jëmm yoo xam ne wóor na ma ne moom du ñu noppi il ñuy wax quoi. loolu ñu toog daan ci mbedd mi. voilà c'est ça mm. donc pour loolu pour arrestation yi la quoi. bon maintenant maa ngi xar beneen question. waaw léegi beneen question bi mooy mbiram Ousmane Sonko bi ban njàngat nga ci def yow commissaire Boubacar Sadio. njàngat euh, bi mu si def nga may ma tuuti ma wax ci ci Sonko. waaw. Euh, bon parce que comme ni ma ko wax si nasaraan. koo xam ne vraiment xelam rafet na. Mhm. idées yi muy am rafet na te am na ay qualité intellectuelle surtout euh, moo tax mu mën a am loo xam ne xëy na da ko proposé Sénégalais ba Sénégalais yu bëri gis seen bopp. Mhm. notamment jeunes yi man sama wàllu bopp aussi wax dëgg yàlla aussi am na lu bëri loo xam ne ci programme moom d'accord naa ci ànd naa ci moom naaw naa ko waaye ma préciser ni nag du ma <laughs> du ma militant Pastef mm. te Sonko musuñu toog mu su ñu wax n'est-ce pas wala vraiment aussi que ce soit clair comme ni ma nawee sax yeneen responsable politique yoo xam ne mënu ma leen tudd fii mm. loolu moo tax jeunes yu bari effectivement ñu ñëw fekk ko mais ni nga xam ne aussi noonu la amee qualité Sonko aussi doomu aadama rek la gannaaw doomu aadama la eh, effectivement léegi-léegi njuumte am te si mbir mi aussi dama yaakaar ni am dafa am njuumte daal mooy li tubaab di wax imprudence maanaam bañ a euh, bañ bàyyi xelam ci lu bëri parce que ni ma déggee sax ñoom responsable yi di wax waa Pastef nee nañu fi ñaari at ngeen si gannaaw ñu ngi leen di artu ne gouvernement bi état bi lii dina leen ko pexeel pour vraiment yàqu deru Sonko mais loolu bu ma ko amee si information mais fi ma doon dem ci place yu mel dama koy dàkk. loolooy ah, njuumte bi kon ci sa xalaat ah, ah. li mu wéy di fa dem mooy njuumte ci sa gis-gis waaw waaw pour man c'est-à-dire prudence quoi il a manqué de prudence hmm. parce que nit ki bu lay rëbb euh, fépp foo xam ne yaakaar nga ni mën na fa def ndëgg sërë rek hmm. da nga koy moytu ko bon mun naa aussi euh, mu am disons li tubaab bi wax excès de confiance yaakaar ne fi may dem garaawul li may def garaawul et cetera donc xëy na fii ñu ma defal dara aussi hmm. ah loolu aussi mën na ci nekk donc loolu xalaat mais aussi Euh, may wax ni euh, am na loo xam ne su ma koy naqarlu daal. mooy euh, PV yi nga xam ni tey jii rek bu entendre ni si ëllëg si rek PV bi génne sur la place publique je crois que loolu aussi je ne sais pas parce que futur rek la mën a doon. Hmm. parce que PV moom man yàgg naa ci liggéey. Mm. gis nga jamono yi nekk commissariat di nga def enquête sax enquêteur bi ak yow mi chef de service yéenay xam li nekk ci biir yëpp même yeneen alkaati yi sax tuuti rek lañ ci am comme information bon maintenant euh, actuellement gis nga fi mu toll fi Sénégal instruction bi léegi daanaka population yi ñoo ko yoon yow nooy nooy expliquer fuite yooyu di am en tant que ancien commissaire. non non moom la. ndax ñay enquête ñoo ko génne. waa non mun ma xam parce que euh, normalement. Euh, PV bu dee gendarme la si gendarme la war a jóge bu jógee si gendarme moo dem si procureur ak avocat yi nga xam ne léegi nag ils sont installés dans l'affaire là pour l'instant avocat euh, Sonko yi ils ne sont pas encore installés dans l'affaire parce que ñoom pour l'instant ils ne sont pas concernés donc euh, baax na daal ñuy gëstu pour seet mais aussi il faut nga nangu leen ñi nga xam ne ñoo yore PV e, mooy ñaari catégorie la mooy citoyen lambda yi n'est-ce pas euh, bon xëy na ñu ngi ko jëlee internet et ñu ñooñu dafa am lu ñuy wax droit à l'information information c'est tout à fait normal ñu bëgg xam lan moo xew bon journalistes xam ne aussi yore nañu PV aussi am nañu benn obligation xam ne mooy le devoir à informer les populations. Mm. donc ñooñu moom kenn mënu leen sekk donc nag fi PV bi jógee euh, xëy na ñooñu lañ mën a sekk surtout que léegi àdduna dafa évoluer waaw àdduna ni muy évoluer mooy léegi daanaka sax. Euh, bon am na lu ñuy wax instruction à ciel ouvert pratiquement sax ni enquête bi demee noonu la ko population di di di suivre. Hmm. waaw am na loo xam ne xëy na baax na ci parce que xëy na am na yu bëri yu ñu mënta def mais euh, loolu aussi am na lu muy jur si lorange si liggéeyu police mooy xam nga bii moom yomb na sax quoi parce que si salon bi la euh, ñi nga xam ne ñoo ko wër. ñoo ñoom lañ tudd si mbir mi hmm. yomb nañu identifier hmm. mais am na enquête yoo xam ne bu PV yi di génn si yoon bi rek dafay jafel euh, liggéey police quoi mhm. waaw waaw parce que léegi-léegi nit ki dina am fu mu laqatu mhm. euh, ci information yu joxe rek ñu wane ko ne kay ne kii fii ak ñaari fan ñu jàpp ko mais day mhm. déplacé wu voilà donc loolu moo ci nekk quoi alors man waaw waaw Aïcha waaw donc léegi affaire bi comme ni ma ko waxee xam nga diggante ñaari nit la woon ñuy wax affaire privée mais léegi ëpp loolu li tubaab di wax translation maanaam jóge na si affaire privée Euh, dem ci affaire politique hmm. loolu aussi il faut que ñi ñi xam ne c'est tout à fait normal lu caagee ni sax danoo fàtte euh, a Sarr parce que Adja Sarr citoyen la boo xam ne am na droit porter plainte am na droit porter plainte koo xam ne yaakaar na ni xëy na moo ko teg loraange et cetera hmm. loolu taxul ñuy wax mais nag il faut aussi ñi ñu reconnaître que ñi ñu bokkuñu statut kii député la moo tax xale gis nga ñu convoqué assemblée nationale non seulement député la mais également il est arrivé deux troisième à la présidence et actuellement on le considère comme le chef de l'opposition donc statut yooyu moo tax léegi mbir mi am caractère politique surtout que ñoom aussi ñu ngi ko ñu ngi wax ni complot la daal hmm. bon donc vraiment euh, il faut que euh, man duma si sori trop parce que euh, am na lu ñuy wax secret de l'instruction hmm. bon euh, duma si xuus trop Euh, parce que loolu juge bi ak kii ñoom ñoo ko moom. mais ci njàngat commissaire ndax gis nga ci loo xam ne ndax gis nga ci loo xam ne gëmloo na la ne bu dul carrément complot it am na loxol politique bu ne ci suuf. voilà c'est-à-dire que man sama wàllu bopp. Hmm. Euh, comme ni ma ko waxee formation mayu ma ne complot la. waaw sama formation aussi may mu ma ne euh, lii aja Sarr wax dëgg la mais effectivement léegi nag am naa ay éléments d'information yoo xam ne mun na ma may ma am njort. Hmm. loo njort njo waaw li ma njort te muy njort boo xam ne vraiment <laughs> njort bu dëgër la. Hmm. muy effectivement complot boo xam ne daanaka pour faagaagal benn opposant rek la. loolu moom loolu laa jort quoi eh, bu ñu demee ba ci kanam xëy na. Euh, dina gën a leer waaw dina gën a leer. Mhm. ma ñëw nag aussi si taxawaayu juge d'instruction bi. waaw bala ñu yegg ci juge d'instruction bi. ñu waxaat tuuti ci enquête bi. gendarmerie moo def enquête bi. ñu bari ne ni ko defee jaar na yoon. Euh, teg mhm. nañ ko ci professionnalisme waaye ñu jekki rek gis ne. enquête mhm. booba dañu kaa jëlee ci seen loxo am na it ñu jàpp ne dañu kaa foqati ndax yow booba gis-gis nga ci am te bu dee noonu la demee it lu mu mën a tekki ci gëtu liggéeyu gendarmerie. Mm. waaye ak li mu koy rafetlu aussi am na foo xam ne aussi am nañ fa sikk. parce que déglu nañu ki nga xam ne mooy borom salon bi. par rapport ak doomam. Mm. waaw expliqué na vraiment euh, ni ñu ko traité et cetera vraiment day day loo xam ne vraiment man rafetlu ma ko quoi. Mm. donc xëy na mu amee lu ñu leen di reproché si côté boobu mais enquête bi ci li ñuy wax euh, vraiment jaar na yoon. bon li ma si xaw a jaaxal mooy procureur. Euh, gannaaw jox na gendarmerie enquête dafa leen war a bàyyi ñu jëkkale enquête bi hmm. ñu dem ba nga xam ne ñoom jeexal nañu nga xam ne amatuñu lu ñuy def amatuñu lu ñu wax léegi nag ndoogu doon ne procureur enquête bi nga ñuy dénk ngi nii waaye nag si digg enquête bi ñu ne leen bi xaw ma di xam noonu la demee de hmm. waaye moom la ñuy ñi di wax di moom moom la ñuy rumandaat mais fekk ne noonu la demee vraiment je dis que ça ne pas parce que ki nga xam ne ñu ngi koy tudd di wax ni avocat bu jigéen la mais kooku gendarmerie buñ ko bàyyoon dinañu xam kan la hmm. n'est-ce pas ak ñi nga xam ne yëpp. parce que ñoo ko jël si mhm. waaw parce que diggante bi aussi ñi ñi def nañu ay téléphone dañuy def retraçage appel téléphonique yi pour ñu xam effectivement kan moo téléphoné kañ ak ban heure la ko téléphone et cetera. mais yooyu gendarme bi def mais procureur bi mu joxe dossier bi rek si saa si ni ko ko joxe noonu li tubaab mm. bi kooku aussi euh, dëgg naa oo nañ ko si ay circonstances yoo xam ne vraiment je crois que vraiment euh, jaaduwul daal mm. en fait rafetul daal pour man mm. koo xam ne mu ngi si dëj vraiment nañ ko bàyyi bëri nañ fi et cetera bon ko xëy na loolu beneen problème la mais juge d'instruction bi aussi bi mu jote na lu mu war a gëstu comme li ma wax léegi moom war na entendre d'abord ndaw si Adja Sarr ensuite mu jéem xam kan mooy avocat bi avocat kan la téléphoné médecin bi kan la et ñooñ ñooñu ñëpp mu ànd. léegi loo jàpp kon ci mbirum juge d'instruction beeg ni mu doxalee moom itam yëf yi ba fii. léegi euh, juge d'instruction bi léegi bu defoon acte yooyu yëpp. Hmm. xëy na pour mu xaw a gindee ko tuuti. waaw pour mu seet est-ce que Ousmane Sonko mi wax dëgg yàlla hmm. niñ koy tuumaal fii war naa ko mën a entendre et cetera. Hmm. bon kon moom itam da nga gis na liggéeyam des na. déedéet des na après mu yàkkam ci léegi envoyé ko au niveau de euh, du palais palais boo ñëwee ngi wax li x la et man duma ma dugg si débat boobu quoi hmm. comme ni ma ko waxee rek si fond bi trop du ma si xuus ko parce que am na loo xam ne bëgguma déflorer trop aussi euh, di divulguer aussi le secret de de de l'enquête waaw hmm. boobu te juge bi moom euh, article 72 bu cote pénal dafa ne dafa war a tëdd njaaxanaay waaw moom juge bi hmm. dafa war a sukkandiku ci yoon ak charte pour àtte mhm. te liggéeyam euh, mun na accuser maanaam mu ut ay firnde yoo xam ne mhm. ki nga xam ne moom la ñu tuumal mu ne yaa ko def wala aussi mu ut ay firnde yoo xam ne ki ñu tuumal mu ne ko kii daal li ma gis ci information defu ko mu bàyyi ko mu dem mhm. mais malheureusement nag euh, dafa xaw a yàkkam ci liggéeyam quoi xëy na bu kii bi ñëwee immunité bi ba ñu notifié ko ko bon bu ooyee Ousmane Sonko xëy na dina defaat yeneen actes yi quoi. bon mhm. de telle sorte que Ousmane Sonko aussi si boppam. Mhm. am na bon am na droit juge boobu mu récuser ko. Mhm. maanaam mu ne kii du ma juger. waaw waaw yoon may na ko ko. waaw parce que léegi ñaari façon la quoi hmm. c'est-à-dire ki nga xam ne mooy juge fii ñu ne ko àtteel bu ko neex mu ne ah wax dëgg yàlla mënuma àtte hmm. parce que dama jeeg moom mbokk la et am na hmm. loo xam ne a daal dafa far te day par parloo daal d'accord alors ci woowu oh. Ousmane Sonko googu la ñëw ndax fi mu ne yëkkati nañu na kii laayam am nañu njort ne bu wuy jiwul daanu ko jëli par force foofu la tiitaange ne ndax yaakaar nañu ne itam ñi ko wër rawatina garde rapproché duñ ci duñ ànd duñ ko seetaan euh, yow loo xalaat ci loola naka nga yaakaar ne noonu la yëf yi demee waaw parce que Ousmane Sonko mu ngi si logiquement ah. hmm. parce que dafa ne woon bu ñu lever immunité de kii nu mu tudd parlementaire bi cinq minutes yu ci topp rek dina wuyu ci gendarmerie waaye nag da ciy defoon benn condition hmm. waaw mooy maanaam bu lépp jaare yoon ba mu d'accord ni lépp jaar na yoon fu ñu ko lever man cinq minutes yi ma wuyu ji quoi mais gis ngeen ni depuis bi ñu fi commencé ba léegi hmm. vraiment mu ngi mu ngi weddi yëf yi quoi ne dañu salfaane ay duraam dañu salfaane yoon bon mais toujours est-il moo tax sax euh, débat bi nga xam ni sax ñi ñi dañ ko entretenir hmm. pendant une semaine di wax euh, commission euh, ad hoc bi réunir commission d'enquête bi plénière et cetera man yooyu yëpp vraiment ça ne m'a pas intéressé hmm. parce que si njëlbeen bi laa xam ni rek dañuy kii lever immunité parlementaire bi kon li si des yëpp daanaka sax genre formalisme rek la hmm. mais si njëlbeen bi ñëpp xamoon nañu immunité bi dañ koy lever donc fi mu toll fi léegi juge bi bu jotee euh, décision levée immunité parlementaire léegi moom moo ci des. Hmm. Ousmane Sonko wax na ko mu ne bu boobaa na joon yoon jël ay responsabilité mais Ousmane Sonko ni ma ko xamee aussi ak li muy incarné hmm. yaakaaruma mu nekk fi di daw di nëbbutu et cetera ko kooku dafay wàccee darajam euh, dafay wàccee vraiment personnalité am quoi. waaye ndax du résister. waaw non léegi mun nañ ko fekk këram. même bu ñu ko fekk këram man sama wàllu bo bu ma amee lu ma ko digal mooy bu mu résister. Hmm. parce que d' abord mënu résister contre ñooñu parce que am na noo xam ne bu ñu ko ñëwee bon il faut ñu yóbbu ko waaw kon jaru ko mais le fekk que ñu ñëw foofu këram sax di ko jël di ko yóbbu si loolu force la c' est là toujours day nekk si logique am waaw day nekk si logique am c' est là man du ma wuyu ji si sama coobare bopp maintenant bu ñu amee seen doole boo xam ne mun nañ ma forcer pour ma dem mooy je suis obligé quoi. Hmm. donc ba ba muy toog si juge bi di ak moom ñi ñi dinañ jàpp ni kii dafa toog ak waaye toogu si coobare boppam. da ko jaay doole yóbbu ko quoi je crois que vraiment s'il y a un conseil à donner bon peut-être que xëy na ak conseil am xëy na am na beneen stratégie waaw parce que da na bu mu fàtte ni sénégalais yu bëri ñu ngi wekku seen yaakaar ci moom mm. ñu bëri sax boo déggee ñuy wax sax da ngay dégg ñu ne euh, le futur président de la république encore fa franchement uh-huh. côté boobu si man d'accorduma ci quoi uh-huh. parce que futur président de la république yàlla rek ko xam quoi n'est-ce pas voilà mooy doon laaj bu mujj bi commissaire ndax garde rapproché yaakaaroo bu ñu ñëwee di jël si Ousmane Sonko ñu mm. euh, jàmmarloo ak ñoom ba xëy na ngànnaay euh, mm. génn fa non non non non euh, vraiment il faut être réaliste hmm. si service de sécurité laa nekk hmm. euh, euh, garde de projet dara la ñu mënul pour arrêter ñu pour tere ñu arrêter ko quoi parce que amuñu nombre bi amuñu kii bi et ce serait un illégal aussi voilà vraiment euh, ñoom ñu ngi kaas ni ñu ngi salfale seen yoon vraiment am na côté boo xam ne aussi bu ñu fa àgg tam ñoom bu ñu salfale yoon quoi parce que bu boobaa dana gën a jox ñële aussi euh, non seulement bu boobaa su Sonko si boppam dañ koy topp hmm. ñoom mais garde aussi dañ leen di topp quoi pour obstruction à l'exercice euh, nu mu tuddee de la justice hmm. au bon fonctionnement de la justice loolu aussi bu mu leen fekk daal waaw jërëjëf moom na ci fekk vraiment mm-hmm. na ànd ak xelam na na tey et ñi ko war aussi ñu ci bëri vraiment euh, nañ koy jox conseil yu baax yi nga xam ne vraiment day tax daal bu subaa mu am ndam parce que sénégalais yu bëri dañoo yaakaar ci moom quoi waaw parce que ndax liggéeyam xelam bu rafet et cetera comme ni ma ko waxee sax ànd naa ci lu bëri ci ci ci muy wax te aussi vraiment ci épreuve aussi vraiment maa ngi koy fëtali sama soutien ak sama solidarité quoi. jërëjëf commissaire dalal la ci euh, waxtaan wi tey merci beaucoup